Diaye sama gars yi Barthélemy laa doon seetaan quoi mais barke Rasulullah j'avais les larmes aux yeux quoi mais comment un être humain peut être si hypocrite et si égoïste ne penser qu'à lui-même mais mu naan ay l'injustice a toujours fait partie de l'existence de l'humanité mais Bart, le fait de combattre l'injustice tamit l'injustice a toujours fait partie de l'humanité moom lu mu bëgg daal mooy maanaam tey élection yi ñëw Macky Sall toog ñu bàyyi leen ñoom hypocrite yi les losers ñoom anciens sàcc tu vois ñu élection ci calme parce que moom la crainte ki la Barthélemy mooy madame. Sonko ñu ne bokul boy yëngal town bi Issa Fil élection du euh, manam dëkk bi élection euh, def élection jafé Issa Macky Sall na revenir à ses décisions Barth Macky Sall mu ñëw revenir à ses décisions euh, ñu loolu on on s'en fout quoi tu vois parce que fekkee yéen yeen yeen nar yéen kese nar prendre part aux élections mais Macky Sall il peut prendre part il peut il peut revenir à ses décisions parce que yeen Macky Sall yeen yow yow ñu teg ñu teg fi Khalifa Sall teg fi euh, seen cuuna yaay Khalifa Sall kaw ma bëgguma sa tudd seen mais loolu Macky Sall na ñëwaat day briguer mandat parce que ñun benn changement lañu bëgg te Ousmane Sonko moo ko mën a indi